sunu gaal nan leen joxe mango. Sénégal ay sunu gaal nan leen joxe mango. Nan leen joxe mango. Nango baño ci sunu gaal.
jërë ngeen jëf euh, la famille ñu leen di nuyu ku nekk ñu leen di jox seen wàccuwaay di leen ziar bu baax a baax sunu gaal gi ñuy wax tey dañoo nekk ci tiis ak naqar ndaxte réewum Sénégal dafa am nuñ ko mooñee ñu ko mooñee nag dafa fekk ne kilifa diine yi dañoo bay seen waar ba mu mat sëkk ci démb réew mi muy law ba seeni doom ba tey ji seeni sët tey jii tàmmuñu sax di def live jeudi waaye dafa am loo xam ne moo ñu dab xam ngeen ko bu baax a baax moo di génnuk àdduna Pape Malick Sy ñu bari xam ko bu baax a baax a baax a baax ndaxte dama doon wax ne soo xamee Pape Malick Sy miin ko lu lay njëkk a frappé ci moom mooy humilité lu koy njëkk a frappé ci moom mooy lu muy wax ne il est d'une modernité exquise maanaam ci kàddoom ci solom ci dalam loolu yépp dafa nekk loo xam ne da la doon frappé moo tax ñu bëgg rek tey la famille rendre ko hommage parce que tey boo déggee kàddu yëpp ak lépp ñu leen fas yéene dégtal tey ji di nga xam ne Sénégal dafa ñàkk te bu ñu ñàkkee wareef la en certain moment ñu ressaisir ndaxte dafa moom kàddu yoo xam ne rotaloon na ko ba feebar bi nañu saraax dugg di coronavirus ma koy jaale mbokkam parce que man sama bopp dafa amoon cofeel lool ci man amoon cofeel lool ci man bu ndan daje mu fésal ko ñaanam te lépp lu mu doon yëkkatee kàddu di ma ko dee ngir gën a dëgëral sa taxawaay la kon bu génnee àdduna koy jaale xalif général Tidiane Sëriñ Mbay Si Mansour di ko jaale di ko jaale waa Tiwaawoon gi yëpp si turu la famille wala ma ko mayee ñu koy jaale umma islamique bi yëpp ba pare nag ñu déglu seede yi ñu may leen tamit yéen ngeen def seen témoignage yeneen yi ñu war a wax am na bés yoo xam ne tànn nañ ko di ki wax lenn rek laay joxe comme information loo xam ne yàggoon nañ ko sàkku tey jii yàlla mayuñu ko moo di Karim yóbbu nañ ko pavillon spécial entre parenthèse la woon diñ ci dellu siwaat suba parce que suba am na live boo xam ne dañ koy faral tey exceptionnel la live express koo xam ne saa bu yëkkatee kàddu ñëw tusi la Moustarchidine musahdati xam nañ ko bu baax ndax yàgg naa ubbi waxtaan wa sa champ de course yàgg naa ubbi waxtaan bi kon wareef lañu jaale ko sëriñ mustapha si walam ko déggee dafa taataan ci sëriñ abdou aziz si da baax taataan ci almaktum mu nekkoon nit koo xam ne su ma la doon wax bu leen déggoon ay kàddu dafa dal lépp nekk ci moom yiw kon ñu koy jaale sénégal gi yépp waaye yu mel nii bu amee day jaadu ñu def toujours dégluwaat koo xam ne lépp lu mu doon def mooy fexe ba tarix yi ratax seen diggante témoignage yi dina ko firndeel noonu la rataxale tamit ak jàngu bi kon ñu ne woon day jaadu rek ba ñu yëgee tiis bi mu dal ci kaw réew mi bett ñu nag parce que lu tax mën a bett ñu bett ñu daf ñoo bett tax ma ne daf ñoo bett moo di kenn xaaru ko woon ant nag yàlla mooy joxe mooy nangu duñ def lu nangu dogalam parce que foofu lañ ci toll nangu dogal boobu nag mooy tax ñu war a mën a yëkkati suñu kàddu digtal leen ay nit ñoo xam ne yëkkati nañ ay seede def ko ci moom muy waa Kaolack waa Touba jàngu bi lébu yi ñëpp ndax royukaay la woon Pape Malick si xam nga lu tax éloquence am rek doyoon na ñun ñi nga xam ne dañuy wax ñu koy xool ak dalam doyoon na kon ñu ngi koy jaale la famille yépp jaale ka umma islamique bi yépp jaale ko waa Sénégal gi yépp di leen dégtal ay témoignage waaye laata loolu moom ci boppam kàddu yi mu rotaloon a bëgg ngeen déglu ko bu baax parce que jàngat bu wóor lañu jox ci wàllu corona bi ñu déglu Pape Malick Sy lu mu ci waxoon
Dakar Matin jàngoro bi ñu wax ni wàcc na fi dafa am jàngoro bu ko yées waaw te mooy ñagas ñagasi xol yi parce que ki nga ki nga yéene yiw ah fa tabarakallahu kooku yàllaay seede seen diggante mais ki nga yéene safanit yàllaay seede seen diggante te réew dana dem ba tëdd te dara taxul mu tëdd lu dul xol yu ñagas ko defee kenn ku nekk ah leeral xolam ci digganteem ak moroomam jéggalu borom bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek lu diisoon wala lu ñagasoon ci sa xol nga fexe ba dindi ko ci kooku mooy yées maladie yi ñuy wax ni ay virus wala leneen waaw bu ko defee ñu fàttaliku ci suñu borom ñaan ci barke mag ñi nu am ndax mag ñi épidémie daawu leen déranger parce que dañ ko daan um waaw am na lu ñu ko daan umee ci seen digganteeg seen borom ba na mu waroon a yaatoo du ni yaatoo président de la république jël na ay responsabilité am mais nañu organiser ñaan yi ci niveau ji jàkk yi waaw parce que maa ngi koy wax benn mbokk bu may téléphoné sànq ñuy waxtaan ma ni ko daal lu ma mësul dal daf maa dal ci événement bi xew mu ni ma lan la ma ni ko j'ai peur te xam naa raison bu tax ma wax ko yàlla nag lenn rek mooy mën a tax mu jéggal mooy kenn ku nekk jaamu boroomam boroomam Dakar Matin.
jàngoro bii ñu wax ni wàcc na fi dafa am jàngoro bu ko yées te mooy ñagas ñagasi xol yi parce que ki nga ki nga yéene yiw ah fa tabarakallahu kooku yàllaay seede seen diggante mais ki nga yéene safanit yàllaay seede seen diggante te réew dana dem ba tëdd te dara taxul mu tëdd lu dul xol yu ñagas koy defee kenn ku nekk leeral xolam ci digganteem ak moroomam waaw jéggalu borom bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci sa xol nga fexe ba dindi ko ci kooku mooy yées maladie yi ñuy wax ni ay virus wala leneen waaw bu ko defee ñu fàttaliku ci suñu borom ñaan ci barke nu am ndax mag ñi épidémie daawu leen déranger parce que dañ ko daan um waaw am na lu ñu ko daan ume ci seen digganteeg seen borom ba na mu waroon a yaatoo du ni yaatoo président de la république jël na ay responsabilité mais nañu organiser ñaan yi ci niveau ji jàkk yi waaw parce que maa ngi koy wax benn mbokk bu may téléphoné sànq ñuy waxtaan ma ni ko daal lu ma mësul dal daf maa dal ci événement bi xew mu ni ma lan la ma ni ko j'ai peur te xam naa raison bu tax ma wax ko yàlla nag lenn rek mooy mën a tax mu jéggal nu mooy kenn ku nekk jaamu boroomam ci moroomam Dakar.
na ngi dégg lim wax ñagas ñagasu xol yi yàlla na fexe ba yàlla dindi ko suñu xol yi ñun ñagas ñagas su xol yi la wax donc nekk na kàddu yu am solo tey déglu naa ko met fukki yoon ñagas ñagas su xol yi ak li mu mujjee wax lu ko dafa am lu ko dal ci lii te musu koo dal mu ne lan mu ne j'ai peur virus bu ndaw doomu virus ñoo rek tukkil àddina nekk na lu doy waar njaboot ki def nañ témoignage ci moom ñu ciy xool ku ci mel ni Serigne Mansour si Jamil la mu wax yéen tamit mën ngeen woote ah 88 628 18 18 ma defal leen ko ngeen xam ko ku mën a woote tamit joxe sa li nga xam ne moo di 628 18 18 ça c'est pour Dakar mën ngeen woote tamit ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew mën nañu woote tamit si 33 841 21 41 je crois que c'est ça mais en attendant dañuy dem ci témoignage Serigne Mansour si Jamil
Dakar Matin.
waaw man li may jàngal mooy que ni yàlla pour la borom la waaye borom la gën nekk borom nag li mu am def la kay Dakar Matin. Dakar Matin.
waaw man li may jàngal mooy que ni yàlla pour la borom la waaye borom la gën nekk borom nag li mu am def la kay tey awalam yaraw anna naqabbana al-arda min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa al-sari'u al-hisab yàlla nee na maa jël suuf daggat ka ba mu jeex ni mu naq suñu atraf mooy nag ñu ne al-ulama wa tuqa waaye sidna abbas dafa ni
kooku moo nekkoon Serigne Mansour si Jamil li mu doon wax am solo parce que wax na ko ci anam boo xam ne nekk na anam bu am solo li mu wax.
nee na maa dajal ko ci suuf daggat ko ba mu jeex ñu ne nag suñu atlaq mooy lan ñu ne aloo la maa woon fuqaa waaye sëñ naa abbas dafa ni képp kuy def lu baax bi ñu tàkkee ba maamam alaaji malik sunu taawam bu jigéen sama passé te ma si xaaj malik dafa ni ay sëñ babacar ne ay boobu sëñ xaaj malik waxoon diiru dundam daf ko daggoon istixfaar bu feeñ ci ay wayam yu bare wa rabbini bil xadaa rabbi mu kubbirani ala badaika ya rahman ya rahim yàlla nee na luy sama yoon lan mooy sama yoon ci xaar ci yàlla dafa nekk buur borom buur nag li mu am na ko koy dee su ko soxlaa ñoo jël ko ñu ngi bind xaar ci tàgguwuñu ñu ngi bind Pape Malick tàgguwuñu daf ñu ko dénkoon rek kon alalam la ñëw jël si ñàkk nañ na ku réere ñàkk nañ ku nga xam ne kii li mu dagale sa expérience kenn xamul nu mu tolloon expérience ci jamonoy bàyyam suñu abakan expérience boo xam ne ci keppaaru madame Cheikh Ahmed Tidiane pendant quarante ans ci keppaaru magam sëñ Abdou Aziz kon tey kooku moo dem ñi nga xam ne ñoo def gannaaw ñoo am gàtt bu rëy rëy ñu ngi naan yàlla rek mu jox mu kàttan kàttan boo xam ne bii comme ni ko sama si xaj ma di waxee waxee woon yàlla yóbbu nga faj soxna faj si doomu adama rek la su fekkee ni joxoo ma kàttan maam alaaji mari bi mu ko nangu duñ ko man duñ ko muñ kon tam tey suñu bàyyi suñu soppe suñu royukaay par ma di dem ñu ñaan yàlla mu jox ñu kàttan jox ko mbooleem julli kàttan bu ko mën ñee waaye bàyyam dafa wax ni man seen babaka sama taalibe wala sama soppe léeg su braat su si tolloo ba naan ñu taxaw baraka su fekkee njuur bi doon na ba nu sànq sànq ju léeg di ko dugal si biir bàmmeel nee na man seen babakar naa ñëw taxaw gàtt ko dogele ko yóbbu ko àjjana yàlla ko yàlla defal doomam si waaw kon nag وربي من عذاب ربي مصبرا وغير عذاب ذلك يا رحمن يا الله يا من يا من
kooku moo nekkoon Serigne Mansour si Jamil nee na suñu borom lépp lu ñor ci kaw suuf moo ko moom comme lu moom la nag bu koy jël du tàggu kenn te ñoom xam nañ ko lu ko soob lay def def na ko nag desaluñ ko lu ñaanal ko desaluñ ko lu dul defal ko témoignage desaluñ ko lu dul déglu ay kàddoom def ci ay jàngat seetlu leen cheikh ahmed tidiane ci almaxtu ba mu demee ba tey seetlu leen lu ma yëkkati fii ci réew mi rek su ma leen dugalee kàddu mu mel ni tey la ko wax baax te des fois mu nekk ay wax yoo xam ne ay kat la ko wax almaxtum bu leen déglu bu baax ba muy wax ne ci justice dama tiit kon nañuy taataan des fois ci waxu mag ama man soxlawu ma jëli ay victor hugo ay montesquieu non boo dégloo rek kenn wax fanaanoon ñoom rek déglu ko diñ ci jëlee loo xam ne doo ko jëlee ci ñooñu ngay liir ci ay téere wax na aj Mansour Mbaye kenn la ci kër gi moom it yàgg fa lu baree bare xam fa lu baree bare aj Mansour daanaka moom xolam toyoon na trop tey mu mën a yëkkati kàddu def témoignage ñu déglu Haj Mansour Mbaye Dakar Matin.
àddina boo ko jaale Sénégal yëpp di ko jaale diine ji yëpp di ko jaale tarix bi yëpp di ko jaale sunu kër moom Fassane Waxaati Baat yi tamit ci ci xam ne mooy magam si di jaayam si di wóotal si du alaaji Mansour ak rakkam sox si daw xaaj bari ak ñi xam ne ñu ne ay doomam di Cheikh Ahmed Tidiane ibn Seydi Mouhamadou Mansour ak Seydi Mouhamadou Mansour ibn Seydi Jamil ak Papa Aïda ibn Seydi Abdou Aziz Al Amin tey islam bi jàkk na diine yi jàkk na tarixa bi yàgg na lépp lu bëgg a bi daan def di si xamante yàlla ci yàlla bëgg doom yàlla yàlla yokk leeram di si ci après ci alam yi bu nekkee xale ba bay nekk mag bu nekkoon ci sunu wet nu koy sant ay mission yu bay mission ci daayira yi mission ci les hommes politiques mission ci gàmmu yi mission ci conférence yi parce que bay bàyyam dëkk si yu bu bakkar bi xaaj moo toogoon ci xalaaf yi vingt-deux ba cinquante-sept bëggoon ko lool soppoon ko lool ko bàyyam alxaaj Mansour ak bàyyam alxaaj Abdou ak bàyyam alxaaj Habib Seydi Mouhamadou Mansour ak magam ja Seydi Chimi ak Cheikh Seydi Ahmed Tidiane moom tur ak Seydi Abbas Al Habib wallahi suñu ko mosaan gis ñun ñëpp dañ koy laxasu sunu maam ñëw na sunu pap ñëw na di ko jaare Sénégal yëpp di ko jaare Seydi Boubacar bi xaaj moo doon porte parole di magam waaye nag di di jaayam la xam du tee mbokk du chasse la xaaj bari kon Sénégal yëpp a jàkk yëpp a jàkk islam bi yëpp a jàkk tarixa bi yëpp a jàkk kon képp ku wax ne xelu ak lee ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noonu kon la koy jaay ko jaay si di Boubacar bu baax ak moom la si ndox xaaj Abdou Aziz ak di ko jaare njabootam bi yëpp ak say mutaxa ak kilifa diine yi xam noonu ci réew mi yëpp ñu noon na lool nag Touba ndax maanaam bu baax di sax ko ci jël lépp lu ma saxew Touba moom la yebal tey ndax daal si laa ak sa kon nag di dem tey diine yee ko yàgg lislaam bee ko yàgg tarixa bee ko yàgg bu sama rakk nag ba góorgóorlu soppal ma lool lépp lu xam ne xeer li naa ko boobu ci man soxna ci jàmm noonu ci woon ñëw moom la yebal mu ñëw fii ci kër gi yàlla ko yàlla yéen ci yéen ko jëmoo sax maam ñu sosal xaaj yu bari rek te moo ko waral di ko yàlla sax dem ñëpp.
dégg ngeen xaaj Mansour Mbaye kër gi da koo xam min ko mu tàmbalee ci turandoom Mansour si mu mag kon mu minoon kër gi lool lool lool lool gis ngeen kàddu yi mu rotal xolam tooy na tey ko déglu rek xolam tooy na lool li may wax rek ñu jàngat ci lu baree bare parce que témoignage yi man ba ma koy déglu ñu baree bari xam nga ñi ñëpp mën nañu wax ne ñu ngi bokk ak ki nga xam ne moo di Pape Malick Sy di Serigne Mansour Sy Djamil bi ngeen déglu léegi di Hadj Mansour wax nañ ñun rek a wax sëriñ abdallah muntaga ñas ca kaw la def na seede
Dakar Matin.
inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey ew nañ ci tiis bu métti waaye nag ay jullit lañ tey gëm nañ yàlla yonent sallallahu alayhi wa sallam ba mu amee tiis xol bi dana métti bët yi dana sotteeku ay ronkoñ waaye duñu wax ko yàlla lu ko nakat pert nañu kilifa gu rëy kilifa goo xam ne umma islam bi moo ko ñàkk waaye tariqa si Ahmed Tidiane ñoo ko ñàkk Sénégal ko ñàkk nit la koo xam ne école bu rëy la nekkoon moo tax toujours koy dégg waxtaanam rek muy dellu ci sëñ Cheikh Al Maktoum ñi nga xam ne géej la woon ci xam-xam doon jàngale di yare li ci mujj rek mooy mbas mi nga xam ne ni ñu ngi ci réew mi tey ñaan yàlla yàlla bu teggi ko ku ne buy seetaan télé yi da nga ko gis mu ci def ay dénkaane ba jël ay loxoom ci raxasu di def ci nangam kilifa googu lañ ñàkk tey di ko masaw di ko jaalee xalifa bu kett bi tey di Ababacar si moom dóor di ko jaalee xalifa généraux yi ci réew mi yëpp di ko jaalee ñun ñëpp ndax ci ñàkk tey réew mi yëpp ko ñàkk ndax tolluwaayam ak doyam ci xam-xam ci nekk ku ne gis na cër bi mu amoon tamit ak teg yéen bi nga xam ne ne ci moom jumaa yi masalikul dinaan bi ku ne gis na ko dafa sukk nuyu xalifa bu tedd bi ñu sëñ ñu doxaat di ko ñaanal yàgg loolu ngeen koy jàll bu baax
kooku moo nekkoon sëriñ abdallah muntaga ñas ali cissé ca kaolack moom it def na seede xam ñoo ñëpp ñoo bokk tarixa tijaan bi ñëpp def na seede bu am solo moom it
Dakar Matin.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون ci crise bi nga xam ne bett nañ ñëpp nekk ci Sénégal muy dem ak Cheikh ak Malick si porte-parole Thion nga xam ne kenn la ci ponk yi réew mi nekk ponk ci diine ji nekk tim ponk ci tariqa bi waaye nekk ponk tim ràññeeku ci xabrat al malikiya muy Thion ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci demam nga xam ne dëgg dëgg bett na ñëpp man léegi rek ma koy gis ci réseau yi lay tombe tamit ak xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima di ñu oo pour yëgal ñu ko muy xamale rek ne mbetteel la waaye perte la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk diine ji ñoo ko ñàkk waaye tariqa Tidiane ñoo ko ñàkk muy nit ku baax muy nit ku ku oyof muy nit ku modeste koo xam ne ku ànd ak jamono bi la ci lépp lu baax ndax man xam naa ci jokkoom dëgg-dëgg boo xam ne mu ngi bàyyi mébét boo xam ne mu ngi ko amoon pour ñëw Medina pour ziare magam am soppeem muy Cheikh Ahmed Tidiane Niass kon xamee ne jamaale ne yéene boobu nga xam ne lenn rek la ci yéene yu baax yi nga xam ne mu ngi ko amoon jokkale mbokk bi jokkale famille bi xam nañ ko mu nekk nit koo xam ne ci mu tawaaday la ku oyofal boppam te taxut mu oyof ñu ngi koy jaale askan bi yëpp waaye ñu ngi koy jaale xalifa Tiwaawan di ko jaale Medina di ko jaale mboolem këri diine yi ndax ñëpp ñoo ko ñàkk di ko jaale Sénégal yàlla yàlla dëkkale koog way dawe mi yiw dëkkale koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéene yal na yàlla jagal ñi damm damm bi damm damm la yal na ko yàlla jagal damm damm la ci barab boo xam ne xam nañ ne barab bi miñ na am ku baax waxtu wu nekk ci barab bi ku baax yal na yàlla puutal ci barabam gën yàlla yërëm ko yàlla tuuti ko ci jaboot bi yàlla bu mu bàyyi fitna mun ko fekk ci kanamam te yoon ñu ci musiba mi ñëpp jaara si
kooku muy ne kon waa Kaolack ñoo doon def seen témoignage ñoom ñëpp ci tarixa bi lañ bokk Eh, su kanamee tuuti ci témoignage yi ma leen fas yéene docteur yëpp di ngeen gis ñeneen imam Sudi Nooru Taal wax na moom it ci jabootu taal taal li nga xam ne moom loo xam ne war nañ ko mën a sedde nekk na lu am solo moom it dem seeti ko imam ci la mu wax
Dakar Matin.
inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dañu ko suñu borom digalee ci doon amee fii ci dal Sénégal dañu ne woon ne rek yéen ci yàlla ngeen jóge woon ci moom ngeen doon inna lillahi ma ata wa lahu ma axad yàlla lu mu la joxoon moom moo la ko joxoon lu mu jël ci tam moom moo ko jël ñu wax rek ajarama allahu fi musibatina hadi wa axlafana xayran minha yàlla mu yàlla féete fépp fu mu doon féete jaamu yàlla bu baax a baax a baax mu doon maslaha kon man li ma ko gëjee gis moo tax bu mu gën a te ñëw na ci jàkk ci dañ koy yaay soxna ak ma dëkk yi nga ak na ñu ngi ci def ko ci dama ngi ci ko waxtaan bu bëri bëri bëri ndax sama xarit la wax yàlla nag moom moom moom ay mbiram perte gu rëy la ci islam perte gu rëy la ci Sénégal perte gu rëy la ci tariqa ci jàng bi perte gu rëy la ci njabootu ak ci maay koo xam ne ay mag rek ñoo ko yar du am solo lu mag su la yaree ñu jël si moom valeur yu bëri moom la jëloon ma valeur yu bëri si moom donc am na lu mu jël si papam lu def lii say ceex ma ci ko man toujours dama ko doon wax ne su ma la jotee rek dama yóbbal si yëpp si famille ala ci Malick yow rek laa koy yemal ma nekk si ñoom ñëpp ñu fi ñu fi ñëwee ñuy waxtaan ma ne ko yow nag yëpp li nga nekkee porte parole mu ne tuma la jot léegi tëpp nga ma doole mu ne ma déedéet léegi tuma la ëpp doole mukk ñu jëlaat ñu waroon jox ma ko macha allah xëy na yàlla noonu la ko dogale yàlla njaboot bi yëpp def marsaw ci ne nag jullit moom muñ rek lay la am suñu borom moo ne wala nag yoon na comme biché in min al xawfi min suuti wala kasin min al awzaari wala kutu samara wa bakkir الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رب ورحمة tey bu la yàlla su la yàlla jëlee lu mat soo ko muñee lu la yàlla nar a fay moo gën a rëy ndax julli yàlla ci nit loolu lu rëy la bu yàlla bind si leen dootuloo doot dootuloo defe kenn ko yàlla yërëmal dugal ko si yërëmal dem xëy na fu mu fekk ñu doon féetee njaboot bi yàlla di ko yàlla fay borom ndaw bu yaatu la nag mais yàlla moom fu mu fu mu fu mu duggee dina xëy ñu tax naa ko yàlla ñu yàlla ko ñaar ñu ngi jaale jaboot bi léegi day wax ak seen mawt ci bu tëj yàlla moo xamal ma wax ci loolu am ci ma ne nag ah loolu de lu metti la man nañ koy jaale jaboot yëpp jaboot Cheikh Omar yëpp ñu ngi koy jaale jële ko si Thierno Bachir ñëw ko si Thierno Matane ci bu gën a tuuti si jaboot gi ndax lu dal kër Alaji Malick doon na kër Cheikh Omar ndax ñaar ñu jaxasoo la comme ndox ak suukar kenn mënu leen taxali ko du du leen dal tiis bu leen dal dal tamit tiis bu ñu dal dal tamit kon nag ñu ngi leen di marsawu di marsawu Sénégal yëpp perte Sénégal yëpp la nag Dakar Matin.
dégg ngeen loolu mu wax mu ne perte Sénégal gi yëpp la parce que dafa am benn penseur tubaab bu mosoon wax mu ne j'ai pas peur de mourir mais j'ai peur du néant ñu ne ko lan mooy le néant mu ne nga dund ci kaw suuf ba pare boo demee doo am dara luñ la fàttaliku nga dund ba pare ci kaw suuf doo am dara luñ la fàttaliku amaana mën nañoo wax ne ñii di wax ñëpp ci tarixa tijaan lañu bokk kawlak taal ñu wax ñëpp mais nag ñeneen jox nañ seen seede Seydina Madione Laye nekk fii ci yoof ñu xam leen bu baax a baax ñu jël tay siir yi sax di ko am ñu koy defee ñoom di wane ne tarixa yëpp benn lañ
Dakar Matin.
dañuy wax ne rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yeewu nañu tey ci Sénégal ak tiisu bu rëy bu metti bu bett it ñëpp ndax kii gi jóge tey ji nit la koo xam te ni que ni ku amoon yëg-yëg la ci diine am yëg-yëg ci doomu aadama am yëg-yëg ci njaboot bi ak yëg-yëg ci réew mi yëpp ak àddina bi yëpp kon nag ku mel noonu su fi jógee dana nekk tiis woo xam te ni que ni addina bi yëpp noo koy bokk l'islam bi yëpp noo koy bokk dana wax ni que ni Sénégal tey diine ji yëpp ñàkk nañ koo xam te ni que ni du ma ne du ñu am ku ko remplacer waaye dana jafe lool ci personnalité ci xam-xam ci fulla ci fayda ak taxawaay bu mat sëkk ci diine bi nga xam te ni que ni mooy kër sédagement kon ku mel noonu su fi jógee dana metti lool moo tax ñu jëkkati kàddu yi ci ndigalu xalif général Baye Abdoulaye Thiaw Laye ak njaboot gi yëpp rakk yi yëpp doom yi yëpp ak taalib yi yëpp wan Sénégal yëpp ni wan waa kër Seydi Hadji Malick yëpp ni lii xew tey jii ñoom la gën a métti ñoom la gën a dal ñoom la gën a bett waaye nag yàlla mooy dogal lu ko neex ma yàlla it mooy def lu ko neex loolu kenn mënu ci dara moo tax ñu jox ma ndigal ma jaale Sénégal yëpp jaale àddina bi yëpp jaale diine bi yëpp jaale sunu waa kër Seydi El Hadji Malick mi nga xam te ni que ni sunu wajur sëñ Mansour sëñ waa sëñ Bessi Mansour mi nga xam ne moo nekk ci bopp bi noo ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ba lépp li nga xam te ni que ni yére na ko ci diine maamam bi yàlla defal ko ko ci.
Dakar Matin.
loolu moo nekkoon njaalu suñu mbokk laayeen yi ñun ñu xam nañ seen taxawaay tamit ci wàllu diine li gënoon marqué nit ñi ci ki nga xam ne moo di Pape Malick Sy gis nga bés bi ñuy inauguré Masalikul Jinaan daf ci am taxawaay boo xam ne dafa marqué woon ñu bari ndaxte fa teel a ñëw wala laata loolu sax ba sëñ Mountakha ñëwee fii suñu maam jooju tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax yàlla na fi yàgg te wér moom it ñu gis ne dafa doon dem di nemmeeku sëñ Mountakha lim nekk Ndakaar yi ñuy ubbi Masalikul Jinaan mu ñëw am fa taxawaay bu marqué ñu bare bare bare bare nekk ci wat bés boobu boo leen fàttalikoo moom sax moo jëloon kàddu ci turu umma islamique bi yépp wax yëkkati kàddu waaye laata loolu nu mu daree woon ki nga xam ne moo di sëñ Muntaxa mu mel ni mbir mi mbiram la woon du ci invité naam mbiram la woon ndax lañ doon ummi ubbi umma islamique bi moo ko moomoon ndax ku dem di julli ci masaalikul jinaan mbégte di nga ko ci am ndax lu tax ndax nu mu taaroo nu mu jekkee nu mu rafetee boo fay dugg du laaj ban tariixa nga bokk mu nekk lu am solo ki nga xam ne moo nekkoon coordinateur nekkoon ci wetu mbàkke yu fay di El Hadj Samba Diaw dafa am lu mu wax seede boo xam ne def na ko
Dakar Matin.
li dal suñ kaw de moom wax dëgg au moins islamique bépp ah la soxal waaye lañ jàpp ne yàlla moom lépp te mooy dogal waaye dañuy wax ne métti na waaye lu métti moom lañ ko muñ rek xam ne moom mi nga xam ne moo fi jóge tey jii ku am solo woon la une voix plus autorisée bu jëm jóge ci sëñ bi dana wax waaye nit ñi nga xam ne liñ ci xam ci Masaalikul Jinaan nga xam ne alaaji Mbàkke yu fay moo fi nekk ba ci inauguration bi rek bu ma ci joxe exemple rek nga xam ne dafa teel a ñëw teel teel a ñëw lool bi mu ñëwee tamit nekk ci ginnaaw suñ mu taxaar fi mu nekk photo yaay yëpp ñu ngi circulé ak tànneex bi nga xam ne amoon na ko bi mu nekkee ci wetu sëñ bi julleeg moom ban pare tamit ci umaïs bi képp ci seen porte parole la mu jël ci kàddu wax wax yoo xam ne ba léegi rajo yeeg télévision yëpp ñu koy relé ci li nga xam ne boole umma islamique bi ñu nekk benn muy koo xam ne koo xam ne macha allah biñ ko téye Mazaari xam nga bu doon xam nga mënoon naa nekk ñëw ay boori treize heures baax yi waaye dafa téye li ñëw ci àjjuma ji lool ba pare Mazaari bi li mu xat xat xat lépp mu ngi ci wetu sëñ bi bu ko tëjee ci wetu sëñ bi nga xam ne ne mbokkamaam la léppam la bu nekk ak sëñ bi da ngay gis ànneex bi muy am yëpp maa koy partagé ndax tey exemple boo xam ne ñëpp war nañ cee jàpp xam ne ñun benn lanu duñu ñaar benn topp lanu gis nga lii may wax nii. ndeysaan naqari na xam naa ne métti na lool àll ci mag yu fet ndax xam naa ne bi mu ñëwee ci moom moo ko doon def ma nekk ci wetam ne en tant que coordinateur lépp ci sunu loxo la la tere tey jii ma communauté Mouride bu Ndakaar ñoo yëkkati kàddu rek di di jàll waaye di jàll ci Muntaxa ndax bu ñuy seet ci Muntaxa moom moom moo ñàkk tey ndax kat waxuma Tuubaa dem na fa yoon yoon waaye bi mu fi nekk fii rek ay yooni yooni yooni ñëw na ci sëñ bi waxuma inauguration te lépp bu ko defee ci turu sëñ Babacar mi nga xam ne xalif général des des Tidiane la ko def ci yaatalam te ñu xam ne tamit ni mu nekk woon ak yeneen xalif généraux yi fi nekkoon ak yëpp nekk fee magam ji di defar di nekk un un homme discret un homme généreux moom ñëpp war nañoo inspiré ci moom ndax dem ku nekk dafa am lu muy jàngale.
Dakar
dégg ngeen lim seede kii moo nekkoon ci wetu mbàkki yu fay jour bu ñu ubbi Massalikul Jinaan nekk coordonnateur bi ci wàllu organisation bi wax rek ne nekk na loo xam ne image yoo xam ne day fortifier suñu réew xam nga tax ma laaj ma wax leen loolu dinaa ñëw léegi ci abbé Jacques Seck dafa def témoignage te maam lu ma ci xamoon loolu tax moo xam ci danaa leen wax ne aux États-Unis am na benn institut bu tudd institut Eisenhower institut Eisenhower après le 11 septembre Sénégal da leen marqué woon ci benn poñ comment se fait-il qu'un pays à l'époque ñuy wax ne à 95 pour cent 98 pour cent de musulmans benn catholique chrétien Léopold Sédar Senghor mën ko diriger pendant 20 ans loolu da leen mësoon marqué muy wane woon suñu réew singularité ak particularité boobu bëggoon ci jour boo temps yooyu Cheikh Tidiane Gadio moo nekkoon ministre des affaires étrangères mi ngi ma fekk New York ma àndoon ak Dame Baab ñu dem ci institut Eisenhower boobu fekk fa woon Cheikh Tidiane Gadio bu nekk Washington institut mi ngi nekk Washington pour que les Américains amoon benn moo amoon benn rencontre ñu assister rencontre kon damay wax rek ne si Malick wane na rataxal bi war a am ci diggante tarixa yi wane ko jëfee ko wane ko jëfee ko parce que dafa am ñaari mbir dafa am wane man ngaa wane mu nekk ngistal nga wane mu nekk ngistal ñoo xam ne day ngistal waaye nga wane ko jëfee ko ba ñëpp toog di la ko seedeel sa oyof sa dal ce sens de la responsabilité ak sa kaddu goo xam ne dafa sedd waa dëggu nag ku ko déglu mën cee jëlee njariñ appel Jacques Seck wax na
Dakar Matin, nee naa leen di leen jaale li ñu bokk te mu métti ma lool lool lool lool lool waaye nag yàlla dogal ñu ni ko comme musulman chrétien hindou bu ñëwee rek ñu nangu ne yàlla euh, comme amul ku fi def jaar bes ñu nangu ko rek te muñ di ñaanal ko ndax yàlla
allo
allo Papa Aliou oui maa ngi lay ziar bu baax a baax maa ngi lay delloo ziar bu wér te niroo te niroo waare bu baax laa bu niroo ak yow bu dëkk mbuur na hmm?
ma ne te niroo waare bu bu bu bu dëkk mbuur laa ah waaw yaa ngi dëkk mbuur waaw dëgg la ni ngi Waaw.
ziar waa mbuur yëpp waaw waaw waaw professeur laa fii gay naan man pap loo bokk papa suñu boole bi ëpp na man leen dañu xaw a bokk liñ dëkkoon di peut être Peut-être bien.
bu baax a baax waaw jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax waay bon bon suñu sëriñ bi def nag sama Mhm.
yàlla xam na ko Mhm.
man si ku ko am na yàlla yombal jël ko fi mu jóge Mhm.
yàlla ko yàlla teeru fa mu tudd ci nag ci Amiin.
magam Cheikh Tidiane ci li ñu ànde woon ci la yëpp nañu ànde doon ci aljanna amin amin jërëjëf jërëjëf Pape jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax a wax xol xol xol sedd na bu baax a baax am yàlla fa ko taw amin yàlla na ko yàlla defal tawfaq te yaakaar gu mat sëkk lañ ci am amiin amiin waaw waaw Jërëjëf.
yaakaar il était pondéré c'est ça qui m'a très séduit.
pondéré calme waaw il n'a jamais été Élégant, il n'a jamais éloquent.
été auteur de de discours ou de paroles euh, qui dépassent les bornes même dans la colère il parvenait à s'exprimer exprimer sa colère même en souriant ensuite D'accord.
voilà
voilà boo gisee que loolu ngay njëkk a gis si moom ndeysaan
li ko cher formé aussi dëgg la il faut communiquer en parabole boo muusu sax doo décrypter message mukk ah seen cheikh almaktum du ñëpp a ko mën a déglu ah ma ne almaktum du ñëpp a ko mën a déglu ah oui man man koy mën nga koo déglu nag mais doo ko dégg si si si man Cheikh Tidiane war laa tudd maa ngi dëkk fii Mbour Mhm. Cheikh Tidiane waaw waaw waaw ñu ngi la koy jaale yow it ah Cheikh Tidiane professeur laa fii à Mbour mais mais marabu Cheikh ku mu formé foog ak jeexital ci yow ko Mhm, mhm.
waaw que ça te plaise que ça te déplaise implicitement da lay formaté ten cheikh da ko doon faral di toon sax di wax na ko c'était caat bu gàtte la woon caat loolu la wax rek Pape Malick caat caat boo xam ne dañ ko yàqoon la c'était le préféré de la maison
absolument absolument loolu la ko doon tooñee bëggoon naa bu amee jot de temps en temps ñu waxtaan nag xaw ma léegi- incha allah incha allah dinaa jël sa numéro léegi mi ngi affiché wu waaw waaw Après, waaw.
incha allah, dinaa la woo.
Incha allah, naa naa ci kontaan trop.
jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf moom ay les autres là qui veulent s'exprimer. Yal na yàlla jërëjëf sax.
merci beaucoup jërëjëf jërëjëf ci courage incha allah.
jërëjëf waaw kooku da doon wax ñu delluwaat ci abbé Jacques Seck abbé Jacques Seck mi ngi doon wax lu am solo
lool lool lool lool lool waaye nag yàlla dogal ñu ni ko comme musulman chrétien hindou bu ñëwee rek ñu nangu ne yàlla euh, comme amul ku fi def jaar bes ñu nangu ko rek te muñ di ñaanal ko ndax yàlla xaare ko ca këram gu sell ga Pape Malick au moins depuis six fois que j'allais à Tivaouane avec mon fils Oussandou de Joal chaque fois bu ñu demee comme moo gënoon am jeunesse ci famille bi moo ñu doon dalal et tant que maa nga fa woon fu ñu dem ci lu bëtt ka bu sila boobu rek mu yàq ñun yaakaar naa sax jum su ma juumul kenn ci doomam yi man maa ko dugaloon ci école gendarme mu ne waaw la be su ma doom yi sori ñoo koy jàngal ma ne ko ah comme man nga woon nag moom loolu la ñuy def ce qui fait que daj bi sama daj la ensuite ki jëla nekk Eliman Palmari Ababacar Ndour moo takkoon amité ni mu fekk ma ko ndee baay ba tax boo laalee alquran di wax lu ñaaw dinaa daanu suuf di Souley, ma sœur, aînée, a épousé le premier imam de tout Palmarin. Ma di ko tiitaroo, ah, ah. moo tax kenn duñu xaaj de parce que Allah ahad fu ñu jaar rek daj ci moom te Oustaz euh, woo na ma sànq ne ba papa bu ñu toogee ba gën a ëllëg il faut que ñu dem parce que mënuma leen jaale nii rek ah damay dem ba ñu xam ne ci ñoom laa bokk daal naa dem comme yàlla ñëw na jël ko daal gannaaw ëllëg incha allah naa ànd ak suma Oustaz Ndour doom ak Eddy Camara suma beneen jarbaat ñu dem def li ñu war a def foofu rek incha allah.
yaa ngi dégg abbé Jacques Seck li mu wax ñu ne magam bu jigéen imam Palmarin moo ko takk kon muy wone rek réew mi ni ñu ko ràbbee loolu nag dafa am solo pour ñu xam ko mu nekk ay équilibre yoo xam ne dañ ko war a préserver dañ ko war a préserver ba nga xam ne dara du ko laal parce que soo leen xoolee réew yu bari problème yépp soo xoolee li ci ëpp bu nekkul problème mu ethnie problème mu religion lay doon li ci ëpp soo ko xoolee jàngat ko ethnie wala religion ñun yàlla may nañu amuñu problème mu ethnie yàlla may nañu timit ci wàllu diine xam nga abbé Jacques Seck mi dafay wax mais ñëpp xamoon nañ diggante maam Abdou Aziz Dabakh ak cardinal Thiandoum ñëpp xamoon nañ ko ñëpp xamoon nañ ko cardinal Thiandoum danañ wax ne sama salon benn photo ma fa amoon ñu photo mam abdou aziz si tabax ñii topp ci tànki mam abdou aziz tabax yaa ngi dégg li abbé jacques seck wax nee na doomu pape malik maa ko dugaloon gendarme ba may tooñ di ma ko wax ne ma ah waaw abbé yow sama doom yi ay sœur a koy jàngal ma ne ko waaw yaa ma ko dégg kay kon ay sœur a koy jàngal kon mu mel ni jaxasoo boobu nag mooy stabilité réew mi kon man damay tiit ci yenn mbir yoo xam ne nit ñi dañ koy def wala di ko wax ma ne wax ne c'est des équilibres fragiles à ne pas toucher équilibre yooyu nag bu ñu tolloo ci waxtu yi ba ñàkk ñu mel ni Pape Malick si day baax ñu delloo si waat ñun sunu xel delloo soit sunu xel ne kat mën nañu réeroo ci yu bari mën nañu féewaloo ci yu bari waaye li nga xam ne moom mooy stabilité réew mi ñu koy woyee cëslaay cëslaay cëslaayu réew nañ ko aar nañ ko toppatoo nañ ko suuxat nañ koy demalante ndaxte dañ ko daan demalante réew mi tolloon na ci foo xam ne fa mu méttee dëgg tawu abdou diouf ak ablaye wadd candum da doon waxtaan ak ki nga xam ne moom abdou aziz dabax muy waxtaan di sottante xalaat di waxandoo ci problème réew mi kon loolu brassage boobu loolu dañ ko war a préserver bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax te pape malik si mii tey dem dox na ci wàllam ba mat sëkk dox na ci wàllam ba mat sëkk ba mu jeex tàkk Abdoulaye Makhtar Diop grand serigne de Dakar yëkkati na kàddu turu collectif collectivité lépp wax lu bari tamit nga gis nga gis da ngay gis ne ni sëriñ ci jaxasoo mu war a mën a indiwaat ñu delloo siwaat xel yi ci moment yi ñu nekk muy des moments de difficulté il faut le reconnaître très difficile war a delloo siwaat xel yi c'est important
Dakar matin maa ngi nag wax ci turu waa ndakaaru yépp li mu yépp lu tax góor gi fi jógee moo daan def bu ñëw gàmmu Sowiiro wala mu ñëw gàmmu Ciri toog sama wet maag imaam raati Pap Samb daf daan wax man lébu laa lu tax soxnaam si muy denc muy maam mbaas seen mba seen a ko jur ak mama seen mbaas ak aji maam Yaasin Jaañ foofu la ñu xamee góor gi fi jógee ëpp na cinquante ans gis nga kër kër gorom yooyu moo taxaloo ak Sowiiro maam Alaaji Malik bi nekk Lamine Gueye ànd amul asondoo yi kër googu daanaka àddinaam yëpp fala ko fala ko fala fala ko fala ko toogee tax na mu naan man ak samay soxna ak samay doom yëpp si yéen lañu bokk jamono bu nekk moo ko bi ci des mooy sama maam asukan mi nga xam ne mooy wëjëram jigéen ak sama maam Mariam Diop Maktar mi jub jub Diop Moussa Serigne Dakar mu jur ma génn àddina moo leen tàqale maam asukan jëkk génn àddina ma jox la firnde seen diggante suñu bàyyi Cheikh Tidiane Al Maktoum ba mu amee xat-xat ak Senghor bu ñu téye ko fii ci Dakar ñu ne maam asukan xanaa doo dem Dakar seeti Cheikh mu ne rus naa ak jël ma def ju mataan nekk Dakar mu ngi jóge bu seeti Cheikh moo tax góor gi du jóge naka jëkka bàyyi laa koy wooyee mooy wooyee toog fu ma ma sa fekk bu ma lëngee ba ñu waxtaan ba jëkku nekk waa clémentar yi góor yéen a ngi wax te réer dama ne ma ne ko suñu wax bopp la lu ñuy wax di waxu bàyyi ak doom bi ci des yàlla may na ko loo xam ne ñëpp ko seere ci dal dal ci doxinam dal ci waxinam dal ci colinam loolu yëpp nag moom ci bopp moo ko daan tënk ne dignité kenn du ko jaay ci man magasin yi ñu koy utal boppam sàmmal ko boppam loolu waxtaane ko waxtaane na ko ba taay li lay woon loolu mooy gis nga ñu mu meleeg waa Tiwaawan meleeg ko ñu mu bokkal ndey bàyyi meleeg ñu mu bokkal bàyyi ak ñi nga xam ne mooy biir ba gis nga ba kër dem mondial bi góor gi sëñ Abdou Al Amin génne àddina ñu mu yombale diggante boobu rattaxal ko ba ay wi ñëw ñu ba ñu fi jógee beneen bi ci des mooy boo ko masaan dégg du ko déglu yi nga xam ne boobu xikma la sagesse lu tax ndax dafa amoon culture jële ko nag ci sëriñam muy sëriñ Cheikh ba yàlla may na ko suy wax ak yow wala muy wax ak mbooloo foog nga déglu ko ndax di ci séentu njariñ yu doxalu àddina ci sa digganteeg nit ñi sa digganteeg sa borom li tax na waxtaanam daan neex day dëppoog jamono jóge na fi wante man maa ngi am yaakaar bu baax a baax ne lépp loo xam ne lii lu mu doon noonu la ñi mu ubbee bàyyi dañ ko sàmmale mooy rattaxal diggante yi diggante këru diine yi ndax barke dem boo ñaari diis mu dem Touba ziare ji sëñ Mountakha Mbacké ñu ngi koy ziare mu di ko jàll barke dem boo ñaari rek dem na loolu yëpp nag fii jamono tollu ma dégg léegi sama mbokk mi am na xarit nag di ko wax nga xam ne ñu ngi ragal ñuy féewale tarixa yi ñu ngi ragal ñuy féewale kilifa diine yi ñu ngi ragal ñuy féewale sax ku mel noonu su ñu jógee dañu ñaan yàlla ñu koy uute ñu koy uutoo am boobu taxawaay ndax réew mi nekk ci dal.
dégg nga dañuy ñaan yàlla ñu koy wuutu ñoom boobu taxawaay xam nga lu tax réew mi moo soxla réew mi moo soxla dal dal nag xam nga lu koy indi. mooy kàddu gu dëggu teg lépp ci yoon tarixa yi ñu moytandiku ku nekk li nga gëm gëm ko waaye nag bul tuutil keneen lim gëm parce que féewale rek lay indi loolu su ma koy wax dama koy ñaan ci réseaux sociaux yi surtout te xam ñu bari dañ may wax ma ne leen gis nga man ay lu ma def ba pare ay commentaire yi duma ko lire ñu ne ma lu tax ma ne yomb na trop ñu toog liggéey ba génn mbir yenn mbir yi teg ko ci nit teg kafem déglu ba mu neex la bind lu la neex dañ koy gis lool ci réseaux sociaux di ko gis ci leneen di gis ay nit yuy toog jël réseau jël kilifa diine wax ko loo xam ne tegginuwul rafetu nañ ko bàyyi nañ ko moytandiku parce que réewum Sénégal gii dañ leen ci mooñaale xam nga tax ma wax leen loolu mais bu nekkee ne tubaab yi fi nekkoon ay colon nekkoon fii gouverneur yi ñoo mënoon sàkku di waxtaane sunu maam yu baax ya fa nekkoon yu fi nekkoon pour am dal bu nekkee tubaab yi ñoo amoon présence d'esprit boobu ne réew mi pour ñu mën a am dal il faut ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la sénégalais yi gëm jox leen seen wàccuwaay mas ñun ñi nga xam ne ay meññeenti lañ ci ñoom ay meññeenti lañ ci ñoom bu tubaab bi war a mën a am xel boobu waaye ñun war nañ ko mën a am nag kon xam nga damay wax ne nit day am benn dimension boo xam ne buy wax foofu nga koy déggee dégluwaat leen li Pape Malick si wax ci corona Dakar Matin jàngoro bi ñu wax ni wàcc na fi dafa am jàngoro bu ko yées waaw te mooy ñagas ñagasi xol yi parce que ki nga ki nga yéene yiw ah fa tabarakallahu kooku yàllaay seede seen diggante mais ki nga yéene safanit yàllaay seede seen diggante te réew dana dem ba tëdd te dara taxul mu tëdd lu dul xol yu ñagas ko defee kenn ku nekk leeral xolam ci digganteem ak moroomam waaw jéggalu borom bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek lu diisoon wala lu ñagasoon ci sa xol nga fexe ba dindi ko ci kooku mooy yées maladie yi ñuy wax ni ay virus wala leneen waaw bu ko defee ñu fàttaliku ci suñu borom ñaan ci barke mag ñi nu am ndax mag ñi épidémie daawu leen déranger parce que dañ ko daan um waaw am na lu ñu ko daan ume ci seen digganteeg seen borom ba na mu waroon a yaatoo du ni yaatoo président de la république jël na ay responsabilités mais nañu organiser ñaani ci niveau ji jàkk yi waaw parce que maa ngi koy wax benn mbokk bu may téléphoné sànq ñuy waxtaan ma ni ko daal lu ma mësul dal daf maa dal ci événement bi xew mu ni ma lan la ma ni ko j'ai peur te xam naa raison bu tax ma wax ko yàlla nag lenn rek mooy mën a tax mu jéggal nu mooy kenn ku nekk jaamu boroomam ci moroomam Dakar.
kenn ku nekk jaamu boromam ci moromam rafetal diggante yi en conclusion rafetal nekkan nekkin wi xol yi ñu laabal ko jëmale ko ci ñen lii dafa mel ni viatique la la ñu jox ci demam bi ngay doog a ñëw jël message bi mu mel ni viatique boo xam ne daf ñu ko jox nee na réew mën naa tëdd ñu foog ne lu la ko tëral lu dul xol yu ñagas ñagas rek ko tëral kon nekk na loo xam ne bëggoon nañ ko def tey pour rek ñuy ñaan ñun bokk ñi jàpp ne ñoom ci la famille laa bokk may ziar badara si badara si bu moom abdou si da baax ma dégganteeg moom ci téléphone mu ne ma la famille ndeysaan badu nga xam dafa tàng mu ne ma man ci la famille laa bokk ma ne ko ah badu ci la famille laa bokk mu ne waaw ma ne ko ah loolu doy na waar maam alpha si man lañ koy ziar sëñ mawdo ñëpp ñu leen di ziar badu wax ma lu bari nag na ma ah la famille de fi ngeen jàpp moom jàpp leen foofu bu baax a baax continuer leen noonu loolu la ma wax de moom mu ne ma si la famille laa bokk man xaw ma woon sax lu mu ne ma la famille ci laa bokk ma ne ko ci la famille boobu nag ma ne ko ñun de luñ bëgg bokk ñu ci bokk dëgg te ji revendiquer lépp lu ñuy wax ñu teg ko ci yiw mu nekk loo xam ne lu ñu gëm la jiital réew mi ci lépp lu ñu yëkkati ci ay kàddu mu ñor ñu buñ koy wax nag ànd ceeg fulla fayda jom ak fit jox ñëpp nag seen wàccuwaay ak seen cër ku ci rax nag boo ci bokkul rek dañ koy xam kon ci tuur la famille yépp ci turu la famille yépp laa wax ñu ngi jaale sénégal gi yépp duma wax tiawat sénégal gi yépp parce que bu doon wax sénégal moo tax mu doon wax kon ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax a baax di wax ne nañu sant yàlla parce que dañuy alerter di wax suba den delu siwat wax ci ay mbir yu bare bari Karim liñ doon sàkk du ko ñaan may nañu ko may na nañu ko mooy lan yóbbu nañ ko pavillon spécial yóbbu nañ ko pavillon spécial ay avocat am dugal nañ demande de liberté provisoire ñuy ñaan rek ñaan lañu def xamul tax ñuy ñaan parce que dafa am niveau de confrontation bu war a am ak niveau boo xam ne soxlawul confrontation on utilise l'intelligence pour mën a waxtaan ak ñi ñu war a waxtaan ñu wax leen ci yiw ci teggin wax ak ñoom kon incha allah suba ñu dellu siwaat waxtaanee réew mi ci anam yu mu gën a selle wax leen ca jox leen nag ay information yu bare bare yoo xam ne dajale nañ ko incha allah suba la ajjuma tey dañoo defoon live express rek pour rendre hommage Pape Malick Sy kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp ñëpp la famille leen massaw ci tiis dal sénégal di ñaan yàlla mu gëj fi baax ñu baree baree baree bare yàlla mi ngi koy jël ndànk ndànk te am na mag ju baax ma doon wax am na mag ju ñu ne ma kilifa ne kilifa yu baree bari duñ faj duñ fekkee gàcc yàlla bu ñu gis loolu leen sant di leen gërëm di leen tàggu te loolu suba nag ñu dellu siwaat sunu waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy faral di def kon gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax jërë ngeen jëf
Senegal is Sunuga, and let your name go. Senegal is Sunuga, and let your name go. Senegal is Sunuga, and let your name go.